nag mbir mi dafa doon lu am solo loo xam ne dañ ko waxtaane woon ñun ak euh, ndaw yi réew mi kon baax na bu ñu demee ba am fu mu egg ñu war a taxawaat ci kaw euh, ci kanamu askan wi pour man leen leeral li ñuy leeral nag am na solo trop tey ci ñun ndax jàpp naa ne ci lu mat juróom benni weer am na xalaat boo xam ne ñun amoon nañu ko xalaat bi mooy dañu ne woon ñun kat ginnaaw bu ñu saytoo xam ne ndawu Touba am na loo xam ne dañ ko soxla ci wàllu accompagnement xam ne ndaw ñi bari na ci ñoom ñoo xam ne soxla nañu ku leen jàppale ci wàllu financement ak formation ñu xalaat ne ñun kat kon am na benn làcc boo xam ne war nañ ko ci bay bi loolu amee ñu am xalaatu ne nañu def forum boo xam ne dañ koy jëmale sur l'emploi et la formation des jeunes di ci dox di ci wax def ay enquête ba xam lépp loo xam ne tey soxla la xam nombre de euh, jeunes yi nga xam ne dañu nekk ci commune bi doon ay jeunes diplômés euh, yoo xam ne am nañu diplôme ba pare te jàppuñ ci dara identifier tamit li nga xam ne mooy les créneaux porteurs de projet et tout xalaat yooyu yépp nag biñ ko dajalee fekk fekkagut sax njiitu réew mi président Macky Sall am xalaat bi mu am muy euh, ndimbal wala financement yi nga xam ne mi ngi koy jagleel jeunes yi ah ñu ne kon ñun kat léegi dinañu def forum bi yàlla dogal ñu di ca dox di ca wax ba lu baree bare xew ci la ca xew nag bokkoon na ci ñun dañu ne comme dañu dëkk ci dëkk bi yàlla dogal suñu ay nawle dañ fi nekk ñenn ci nawle yi ay politiciens lañu ñeneen peut-être duñu ay politiciens waaye ñun ak ñoom ñoo bokk dëkk bi ñooñu xalaat ne ñoom ak ñun war nañu ànd ci liggéey bi ñun ñu nangul leen ko ndeem ñun tamit li ñuy def askan wi rek moo ko tax a jóg ndekete ñooñu malheureusement ñun li ñu tax a jóg ak ñoom li ñu tax a jóg ñoom li leen tax a jóg bokkul ginnaaw bi ngeen déggoon coowee ca am ba sax am na bés daje am ca ba coow am ci suñu diggante ak ñoom ci kilifa goo xam ne moo ñu boole woon ci benn jataay xëy na loolu yépp sax duñ ci mën a sori ay détails la mais dafa baax tamit ñu xam processus bi maanaam mbir mi fan lañ ko tàmbalee ak lan moo ko taxoon a jóg ak ki nga ne ki nga xam ne moo ñëw pour di ko yàq ndax moom xamoon na ne lii muy yàq. ñun defuñ ko pour suñu bopp defuñ ko pour suñu ay famille dañ ko def pour dëkk bi ndax dañu jàpp ne ndaw yu dëkk bi dañ ko soxla te ndaw yooyu ñun dañoo gis ne ñenn ci ñoom wét nañ trop ci seen yoon ñu ci bari ci ñoom xamuñu fan la ñu war a mën a jaar pour seen procès yi ñu am ñu mën a dem euh, euh, euh, comment dirais am ci ay financement loolu bi mu amee ñun ñu ne ah comme kat ñun dañoo doon ay taalibey Serigne Touba. te lépp loo xam ne méngoowul wala bokk dina yàq image dëkk bi ñun day kenn duñu ci dégg te kenn duñu ci gis loolu nag taxoon na ñu amoon sa xalaatum ne ñun kat dinañ ko délocaliser ngir jëlee ko Touba yóbbu ko ci beneen bërëb la taxoon ñu koy def it mooy bëgguñu woon comme am na ñoo xam ne xëy na ñeneen moo leen yabal pour ñu saboter li ñuy def pour ñu yàqal askan wi li nga xam ne ñun ñu ngi leen koy wutal bëgguñu ñu demoon ba ca bés ba mu am benn xeetu coow parce que bu fa coow amoon ñun ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi lépp ci suñu kaw la ñuy këppwaat ñu ne ah comme kat nag ñun ci dëkk bi la ñu dëkk te fan yooyu dégg nañu sëriñ bi mu réitéré waat lépp loo xam ne ndigal la wala interdiction yi nga xam ne daf ko euh, interdit ci dëkk bi te loola bokkoon na ci ay ndajey politique yu mag naam li ñuy def sax xëy na du politique à 100 pour cent mais ñun ñi nga xam ne ñooy initiateurs yi ay acteurs politiques lañu kon pour nit diaboliser ñu ci côté boobu mën na yomb loolu tax ñu ne kat ñun nañ ko délocaliser yóbbu ko Mbàkke Bawol bi loolu amee ñu xalaat ne ñun kat fépp fu ñuy dem dañuy méngoo ak li nga xam ne mooy sart yi nga xam ne réew mi dañ ko tëral ci koo xam ne bëgg nga organiser mbir ñu dem ca fañ ko war a euh, defee muy bërëb ba waxtaan ak soxna sa nga xam ne moo ko moom ñu waxtaan ceeg moom mu ànd ci ak ñun à 100 pour cent xamal ñu ne ñun kat lépp loo xam ne jën na ci loo xam ne day jariñ ndaw képp ku ko woote ci suñu kanam danañ ci ànd ak yow ñu waxtaan ak moom pare dem ci ki nga xam ne mooy la préfet bi nga xam ne moo fi jóge waxtaan ak moom aussi ci biroom bi ñu waxtaanee moom mu jox ñu accord am ne ñu am ngeen sañ-sañu organiser lii ngeen bëgg a def surtout nag li ma ci gën a neex mooy yéen a ngi def lu am solo te lu dëkk bi soxla ci jamono jii ndax kuy waxtaane ndaw. ak ëllëgëm ak lu ko orienté teg ko ci yoon jàpp naa ne man duma def lu dul accompagner leen moom la préfet moo ñu wax loolu. ma ne ko est-ce que préfet kon ñun war nañu mën a nag dàmbalee dem defi suñuy activité ñu bari ci ñun keroog àndoon nañ ci délégation bi ñu ne moom la préfet mun nañu waawooy am ngeen sañ-sañ bi man ngeen a dem def lépp loo xam ne démarche la walla communication la ñeel bés bi nga xam ne moom ngeen bëgg a def léegi nag. bi loolu amee ñu pare pour suñu organisation dem ba ñu ne euh, deux walla benn deux jours moo ci des moom la préfet mu génnaat wax ak ñun ci façon bu ñu jaaxal bu bokkul ak ba nga xam ne moom la waxee woon ak ñun xamal ñu ne ndaje nii ñu bëgg a def moom en tant que autorité administrative du ko nangu tey te du ko nangu ëllëg ñun nag yàlla dafa dogal ñuy ay ndawu républicain di ay citoyen yoo xam ne lépp loo xam ne suñuy autorité administrative dogal nañu ko mu neex ñu ak mu bañ ñu neex loolu daañu ko nangu bi loolu amee ñu nangul ko ko en tant que autorité bi mu doon naam ci biir am nañu ci lu ci lu ñu ci naqadi mooy le fait moom en tant que préfet bi mu doon mooy préfet bi fi jógee nii en tant que kilifa gi mu doon jàppuñu woon que ni moom dina pare pour euh, euh, di sukkandiku ci ay menaces wala ay audio yoo xam ne ay nit ko ko jox di ko di ko di ko xupp ba mu ñëwaat ci décision loolu jàppuñ ne ak moom en tant que autorité bi mu doon ak bépp autorité jàpp naa ne bu fekkee ne mbir ay ndaw ñi ngi koy def te muy loo xam ne njariñu dëkk bi la ak jeunesse su dëkk bi jàpp naa ne balaa nga ciy jël bu fekkee ne da nga jël ay da nga recevoir moo xam ay menaces la fu mu mën a jóge loolu waru waru waruloo ci mën a sukkandiku ba yàq loo xam ne tey jàpp naa ne ay junni junni ndaw nga ko yàqal waaye nag voilà donc ak fere yi nga xam ne yëpp defoon nañ ko ci moom jàpp naa ne moom la préfet boobu yoon mayoon nañu sax ñu topp ko ci loo xam ne grâce à moom ñu génne suñu ay moyens def ko ci mais loolu yëpp ñun dañ koy delloowaat rek ci li ma njëkk a wax sànq que ñun ay ndaw lañu lépp luy defar dëkk bi ci lañ nekk lépp luy yàq image dëkk bi nekkuñ ci te la ñu tàmbali woon la nga xam ne moo ñu taxoon a jóg mooy fexe ba ndaw yi dëkk bi ñu orienté leen ak accompagner leen ba kenn ku nekk ci ñoom ci li ma njëkk a wax moo xam procès yi ñu am daañu leen ci taxaw moo tax dama ne fii nga xam ne fii lañu fi ngeen ñu fekk boobu ak tey bind nañ fi lu mu ndaw ndaw junni nit ak lu teg yoo xam ne ñun ñoo leen bindal ay procès te jàpp naa ne objectifu li ñu taxoon a jóg di forum bi moo doonoon loolu kon jàpp naa ne la ñu taxoon a jóg ba tey ci même bit boobu ci la ñu nekk te fas yéene ñoon nañ ko continuer di euh, di di dox ci euh, waar woowu préfet boobu nag incha allah ñun nangu nañ dogalam waaye daañu demaat ci li nga xam ne moom la ñu yoon may saa buñ taxawaatee ba waxtaanaat ci suñu biir ngir dem fexe ba nag loolu ñu bëggoon a def ñu delluwaat ci ngir euh, matale ko ndax jëf la boo xam ne buñ ko defee njariñul askan wi la te ñun askan wi moo ñu fi bàyyi may wax nag ne bépp ndaw tuubaa ak foo mën a nekk. loxo bi ñu la tàllaloon ba tey moo nekk suñu diggante ak yow li ñu taxoon a jóg ci yow ba tey jii lañ ko gën a nam ma def mooy accompagner la mooy orienter la mooy wan la ci yoon wi nga war a tege pour sa ëllëg moo tax ñu ubbi bërëb bii bépp ndaw boo xam ne bëgg nga prof euh, comment dire procès incha allah bu ñëwee ci ñun daañu ko ko defal gratuitement te li ëpp solo mooy ndaw yoo xam ne dañu waroon dem di bind ay procès di fay xaalis bu ñu compter junni ndaw rek. boo calculé woon donte 5000 francs la ñuy fay pay par procès loolu xaalis bu dul jeex la kon ñun ñi ngi leen koy defal gratuitement te loolu yépp c'est parce que ñun dañu nekk ci seen kanam nekk ci seen ginnaaw lépp loo xam ne xam na ne xam nañ ne seen soxla la incha allah ca lañ nekk. voilà cest à orientation yi tey ku ne xam ne ne DER moo fi nekk ñun ñi ngi leen doon bindal ci plateforme bi keneen koo xam ne aussi bëgg nga ñu bindal la ci beneen structure ñu ngi koy def mais li nga wax dafa am solo ñun chaque jour. ñi ngi dem ci côté sensibilisation yi parce que ku ci nekk ci ñun ñi ngi dëkk ci ay quartiers yoo xam ne bokkul donc ñi ngi def sensibilisation donc ñi ngi def orientation bépp ndaw boo xam ne tamit bind nga parce que souvent dañuy gis ci dëkk bi ndaw yoo xam ne dañu leen di bindal ay faux procès fayeeku leen ci xaalis ñoom ñu dem déposé ko buñ ko déposé duñ jot dara dañuy jàpp ne état bi moo leen di nax pourtant état naxu leen ki ñu dem ci moom mu bindal leen procès moo nax bokk na ci li ñu tax a jóg mooy di sensibiliser ndaw ñi di leen wax carrément que ni dëgg la procès nit mën na jàng ne la kaay ma bindal la ko mais du kooku moo ko war a bind dafa am ñoo xam ne dañ ko jàng spécialisé wu euh, spécialisé wu ci donc ñoom ñoo la mën a bindal procès bu bancable boo xam ne tey boo demoon DER wala nga dem beneen structure bu mën a doon mais dina la ko nangul kon euh, ci côté boobu ñi ngi ci liggéey boobu ñi ngi sensibiliser donc ñi ngi orienté ba pare ñi ngi accompagner ndaw ñi ñi ngi jël suñu ay propre moyen di leen ci bindal ay procès gratuitement te ñoom duñ ci fay dara voilà lañ ci jotoon a euh, jot ba tey mi ngi ak ñun lañ ca jotoon jàpp naa ne mënuma dugg ci détail yooyu parce que tamit euh, xaalis la boo xam ne bari na bariwul mën naa ko tudd sax mhm. jotoon nañ ci 1 million 500 mille francs CFA démarches yi ñu ci def yépp moom lañ ci jot loolu c'était pour organisation forum bi préfet bi xam nga sànq wax naa ko le fait que moom la préfet mu jox ñu euh, euh, euh, autorisation nañu dem leen ngeen def lépp lu jëm ci wàllu communication bi ñu jot a génne def ca ak démarches yu ñu doon def la ca des mu ngi fi commission suivi bi la ko ca war ca liggéey ca mooy li ma la wax sànq ña nga ca ñun ñëpp actuellement ñoo ca ànd mooy am na ay nit yoo xam ne ñi ngi ci ñun ñi ngi leen di jox chaque jour la war suñu digganteeg ñoom ñi ngi bindal nit ñi ay procès gratuitement te duñ fay dërëm loolu moo ci am solo. dañuy indi rek tuuti leeral ci li nga xam si ne mooy objectif bi nga xam ne amoon nañ ko ci suñu dëkk aussi rawatina ci suñu commune muy li nga xam ne si ne dañoo toog jàng ko ñu ne nañ pourquoi pas mënuñoo organiser benn forum parce que gis nañ dëkk bi secteur yi informel dafa bari trop rawatina ci cadre jigéen ñi. parce que soo demee si marché yi jigéen nga ñu fekk soo demee fi ñuy fóote jigéen ñi nga fi fekk aussi boo demee fi ñuy bojje gerte jigéen ñi nga fi fekk te alors que ñooñu suñu leen organiser ñu am seeni financement dinañ leen mën a gérer ëllëg ba ñu mën a bénéficier wu parce que ñi ngi dem si banque yi di jël ay financement mais non seulement ñàkk ay formation wala ñàkk ay jaar-jaar wala aussi ñàkk leen a encadré daf leen di waral bu ñu jëlee xaalisu banque mu indi leen ay jafe-jafe parce que DER jaaroon yaakaar naa jaaroon na fi ci première vague mais tey boo xoolee ñi ci bénéficié woon tey ji amul réussite ci ñoom parce que amuñu amuñu formation aussi ñu amuñu encadrement ñu jub nag taxaw ci loolu organiser wu mais non seulement gis nañ fi mu mujj ma jàppoon ne loo xam ne si ne ay ñoo ko organiser organiser ko seen dëkk muy lu baax yaakaar naa coloration politique amu ci mais finalement gis nañ li ci mujj loolu nag ñun dañ ciy sant yàlla parce que li ñu bëggoon rek mooy taxawu suñuy ndaw aussi taxawu suñuy jigéen mais li ci mujj tamit gis ngeen fu mu mujj loolu nag dañ koy bàyyee ak waa dëkk bi surtout commune Touba. parce que ay ndaw na ñoom ñoo jug pour bëggoon leen a dimbali mais ay ndaw na ñoom tey ñoo jug xañ leen loolu pour seen intérêt personnel pour seen intérêt yoo xam ne si ne teguñu ko fenn jàpp ne tey jii tey jii yaakaar naa journaliste bi bu mu laajee ñu ne ko li ñu collecté lépp 1 million 500 la yaakaar naa am na surprise. parce que li ñu jàppoon dañoo jàppoon ne dañoo collecté lu dul jeex dañoo jàppoon ne xaalis bu dul jeex moo ne ci forum bi moo tax ñu doon défendre seen intérêt personnel ba xañ loolu te non seulement li ñu collecté yëpp 1 million 500 la te bëgg naa jàpp yaakaar naa ne 1 million 500 mënul jàppale benn koñ sax aussi bay jàppale commune